mbay demal toog astaxfirullah mbay Kouthia mu ñu gis ci benn vidéo boo xam ne mu cay sangatu nekk ci àll bi di tuuroo ay saafara mbay ci boppam la ñu gis ci vidéo yooyu le mu cay sangatu ak a jéem a ñàkk boppam ñàkk góogee muy ñàkk boppam terewul ma ngay wane la muy def ca àll ba loolee tax na ñi nga xam ne ñoo doon commentaire ci boobale vidéo di ko xamal ne ko mbay yenn yi boo ko dee da nga koy jéem a nëbb doo ko fësal di ko wan sénégalais ndaxte baatin la tudd te baatin ci suuf la asrar léppam ci suuf nga koy def soo bëggee mu jàpp soo bëggee li ngay def nga mën cee am dara yi ñuy jamono ji le di ci gis mbay muy sangatu ci àll bi taxaw ci kaw garab ab nit jàpp ko di ko xëpp aw saafara muy jéem a ñàkk boppam ak a jéem a ci li des ci kanamam ci ak dundam ba nit ñi képp kuy waxati ci moom nga xam li ngay wax ci moom kiy wax ci avocat yi di leen jaay ceekee ko tooñ moo di Dj Boubsou ca xorom ci cin ga amal ci i rajo moom Dj Boubsou ci la taali profito di wax ci sëy yi nga xam ne dafay faral di tas lu bare bari ci tribunal ya moom Dj Boubsou ci la jaay ceekee avocat yi di xamal avocat yi ci bare bari ngeen jéem a négocier ba ñooñee delluwaat ca la ñu nekkoon maanaam ngeen jéem leen a jubale defaraat seenu diggante waaye avocat yu bare bare dañuy tas sew sëy ba noppi itam di takk sew soxna loolee la ñu fi nekkee moom di jëbu su ma nga naa leen maay ki ko wax bu yeboo maître diw na nga dem porte ma plainte leen di tooñ ci kàddum yooyu le maanaam di leen jaay cekke di xamal avocat yi ne leen samay xarit lañu samay lépp lañu samay doomi bàjjan lañu kon sañ naa leen a wax loo xam ne dama leen di di jëbub su nee na avocat yi bàyyi di def sa yéen a ko fi dàq te a jubal boole ñaar ñooñu waaye du ngeen ko def da di tas boobu ba noppi takk jabaru jàmbur beneenu DJ di DJ Xeusa gis nañ ko muy tooñ ki nga xam ne moo di Aboubacarine Samb ci kanamu ki nga xam ne moo di Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé miñ fi doon classe naan ko mbay demal toog mbay demal toog googule Ngaaka génnaat daal di tontu nga xam ne moo di Aboubacarine Samb moom dafa daal di génn woon waay boo xam ne ma nga ca naan mbay daan nga DJ Xeusa di leen ci tooñ naan ko yow ana lan moo tax kii ñu ne ko mbay toogal moom mu ne day lëmbe fépp muy mbay lëmbe yow nga naan ko mbay daan nga yow di Aboubacarine Samb léegi nag nag da ngeen di njaay cekkante ci seeni way moom Aboubacrine Samb naan ko man maa ko wax mbay mi daan na kii mooy mbay ta mbay ngi nii mbay mi toog moo di ngaaka balende daan na gaa yi te itam lëmbe na fépp te itam kenn du ko tax a toog ci gàttal di jëxasaa njaay cekke na leen moom mi nga xam ne moo di Aboubacrine Samb ak ngaaka balende El yi Daw dafay wuyu ji na boromam ministre des sports ba fi woon ñu gën koo xam ci vaa vava gannaaw ba mu wuyu jee boromam moom El Hadji Daw dafay am na ci benn marabu boo xam ne gaa yépp ko xam ci Sénégal muy Cheikh As Barham borom ijaaba borom yàlla nañu yàlla may yàlla waxoon na ko ci benn vidéo boo xam ne lu leer naññ la ca wax nee jàpp leen sama wax ji te déglu ko dana am kilifa goo xam ne kilifa nguur la woon maanaam ci nguur la nekkoon dana génn àdduna ci début année scolaire bii ñu dëgmal muy 2022 ak 2023 na ma ko waxee noonee la amee El Hadji Daouda Faye wuyu ji na boroomam moom mi nga xam ne doomu Kaolack la El Hadji Daouda Faye Kaolack ñëpp ko xamoon mu jiite foon feeswar fii ci Sénégal nekkoon itam ci nguuruk Abdoulaye Wade El Hadji Daouda Faye ñu bari nan ko vaava sama kàddu Feeling Dakar TV ñu ngi jébbal aw njaal aw askanam di ko jaal Sénégal gi yëpp te itamit nag di ñaan suñu borom mu yërëm ko te xaare ko aljana taaru gu weer nes na si ni biddéew leer ni jant kookee mooy ki nga xam ne moo di soxna ay dara ci benn vidéo boo xam ne ñu ngi koy gis gars yi di ko partagé soxna ay dara ma nga ci def make-up teg ay xefam ba noppi itam jekk loolu tubaarkàlla soxna ci Wally Ballago Seck le faramaare ki nga xam ne moo tey musique fii ci Sénégal soxna ay dara gis nañu ko mu nekk jigéen ju jekk jigéen ju yiw ba noppi itam téye boppam gàtta aw tànk gàtta aw làmmiñ lañu koy gis li ñu koy dégg mu nekk ci yeneen di ca wax ak a def ak a dindi barewul kii def ak a dindi mbaa muy jéem a wax ci diggante Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ak doomam bi le mooy Mame Matar Gueye borom Jamra Mame Matar Gueye borom Jamra nee na man woo naa Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi déglu naa ko ci sama téléphone mu wax ma lépp nu mu demee wax na ma histoire bi na mu demee ci doomam wax na ma lu bare bare ci doom ji loolee ba ma ca noppee dama daal di yëkkati sama téléphone woo doom ji ba mu ñëw ma ne ko comme yaa ngi yoof ñëwal ci sama kër ñu daal di waxtaan bi mu toogee caba daf ni ko bëgg la nit ku la bàyyi xel nit ku la jox cër la te itamit nag xolam mu ngi ci yow xelam mu ngi ci yow bañu la waaye itamit nag daf ci am loo xam ne yow yaa ko war a soppi ci sa jikko ji yow yaa war a soppiku te itam yaa war a deltu ginnaaw dem seeti ji sa yaay ngeen toog yéen ñaar waxtaan moom Mame Makhtar Gueye jam waar na ki nga xam ne moo di doom ci Fatoumata Fouta Tampi bi xamal ne ko sa yaay sa kilifa la sa yaay sa lépp la sa yaay mooy ki tax nga ñëw ci sa yaay te nga topp ci ay ndigalam te moytu ay tereem ca ba itamit nag nit la koo xam ne man mii di Mame Makhtar Gueye Jamra bëgg naa naa koo dimbale itam ndaxte jigéen la joo xam ne ku ko dimbali mu dem moom max maam maxtaar gay jam rek nee na du jigéen joo xam ne am foo moo nekk ci bopp bi ndaxte fa mu jot am na lu bare bare lu mu def ci boppam bi ba na ku ko dimbali mën naa liggéey ku ko dimbali mën naa tekki man maam maxtaar gay jam nag maa ngi jàpp ab réunion boo xam ne réunion familiale laa koy def maanaam diggante askanu caba gi yëpp laay dajale ngir ñu toog waxtaane ko dinaa fexe-fexe ba jàmm dellu si diggante caba ak yaayam maam maxtaar gay jamra nee na réunion boobule du ma wax fan laa koy defee du ma wax itam kañ laa koy def waaye bis bis bu ma demee ba lépp sotti ñëpp danañ ci xam dara te itam ñëpp danañ ko yëg waaye ak lu ci mën a xew moom caba du nit koo xam ne nituk neen la am na bopp te itam na ku ko dimbali mu dem ay Aysatu Penda Diop la voyante du peuple noonee la ko waxe woon nee na yow mi nga xam ne yaa di Faatumata Fuuta Tampi yow laay waxal bàyyil xel ci sama wax ci am nga doom joo xam ne du doomuk neen am na ay xan ñu mu àndal te itamit am na bopp boo xam ne boo ko jëlaatee teg ko ci sa dimbali ko di nga ci gis avancement yow ci sa jëmu bopp di ci yokk moom itam dana ci amuk yokkute kon Aïssatou Penda ko teg ko ci sa wet te jéem a xool li ma la nga gis sa na itam nit la koo xam ne moom mi di caba fa mu na ko lu baree bari la mu jot def ci àdduna mbedd dafay defar doomi aadama ni muy yàqee nit noonee lay defaree nit am na nooy jaaree ci mbedd am na looy dund ci mbedd mi lu baree bari dafay nekk ci sa bopp bi lu baree bari itamit nag di ko mën a lijjantil sa bopp kon nag Fatoumata a Tampi demal nga récupérer sa doom demal nga jël sa doom ndaxte weesu weesoogul kawteef bi am ci Inde benn xale bu jigéen boo xam ne vingt-huit ans la am dafa demoon foofee di def benn chirurgie bu ñu tuddee liposuction maanaam chirurgie la boo xam ne dangay wàññi graisse bi nekk ci sa yaram bi wàññeeku waat ba tollu na la ne boobee chirurgie la doon jéem a def moom xale bu jigéen boobu boobule far yàlla mu échec mbir ma dak mujj na moom xale bu jigéen bi dafa jaare ñàkk aw bakkanam te boobu lépp chirurgie bala nga koo def danga cee war a am ay leer nañ am ci ay conseil wu médecin ba ñu xool la ba gis na yow war nga mën a def am benn complication te itam boo ko defee ba noppi conseil yoo war a suivre am na loo war a def am na loo war ta def loolee lépp mën nga ci biir chirurgie boobu nga xam ne dañu koy woowee liposuction moom xale bu jigéen boobu boobule am 28 ans gannaaw bu mu defee boobu lépp chirurgie ca Inde ga mu ko doon defee daf caa mujj jaare ñàkk ca bakkanam Cheikh a wàcc soodaan la ilallah xayartu mbokk yi kenn du lëndëm di taal lamp bu ñuul lumière bi feeñ na sëriñ seex as barxaama borom li jaaba nekk ku yàlla baaxal ci wàllum xam-xam kenn naa tableetul ni moom mooy sëriñu Real de Madrid waaye tamit di ñaanal leen ki nga xamante ne mooy équipe national bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu baax te gisoo leen ko dal leen a jàmm ci sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow miy caq sonal ba loo dugg doo ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seeti sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mii di wut wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu ab ba amagoo borom kër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo mun ti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir lépp koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jaam yi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24 77 wala it si 77 982 55 40 ak Serigne Cheikh As Barxaama borom li jaaba dimbali jaam ñi mooy suma aaj Cheikh Tidiane wàcc soodaan la ilallah xayartu yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi